bu baax bi nga xam ne bii may nañu tey ñu mën a teew fii ñuy inauguré ñaareelu poste haute post ci cent vingt cinq 30 kV bii ci Ndindi deuxième post bi ñu ngi ko dugaloon ci programme bi ñu wooyee vingt cinq kV du Ferlo te mi ngi toll ci 69 milliards virgule quarante 947 millions de francs te gouvernement bu France ànd ci ak FH Énergie pour may ñu mun koo togg comme boobu ñoom ñaar gouvernement bu France ak FH Énergie dugal ci li muy firndeel mooy diggante bi am ci diggante Sénégal gouvernement bu Sénégal ak gouvernement bu France ci yittewu liggéey ci li nga xam ni mooy ñoŋal rafetal dund condition yi nga xam ni anam yi nga xam ni moom la Sénégal yi di dunde bokk na ci ñu mën a jot ci courant may fàttali ne lii nga xam ni moo tax suñu jotaay tey bii mi ngi bokk ci orientation dëgg la tombee waral ay gaaf mais dafa bokk ne lii dafa bokk ci orientation yi nga xam ne bi moom monsieur le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre di chef du gouvernement mooy seen yitte mooy sénégalais bu nekk mën fépp fu mu nekk ci Sénégal jot ci courant bi tax su bësee lampe mu tàkk su bësee mu fay ngir doomam jàng hôpital am lumière am